5M TV mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm ku ne xam ne ne ñoo ngi waajal màggal Touba waaye na gis nañ Touba daa fees dell ak ndox foo jaar rek ndox maa ngay génn maanaam mbedd yaa nga fees dell ak ndox taqrib boole ca ndaxte gis nañ ne taw bi daa xaw a bëri lool waaye nag ab laaj samp na ñeel waa Touba ndaxte ñoom am nañ meer waaye seen am meer lan la jëriñ waa Touba parce que ñoom gis nañ ne kat maanaam instant bi ñi ngi waajal màggal te gis na ne mbedd yaa ngi fees dell ak ndox ba foo jaar instant bi doo jàll ndaxte instant bi kat ñoom ñoo ngi waajal màggal te kat ñoom seen mbedd yaa nga fees dell ba sax waa Touba Ca Kanam ñoo ñëw jël seen oto di ko defar loolee nag nekkoon liggéeyu maire mais nag mujjee nekk liggéeyu askan wi mu nekk loo xam ne lu metti la nag ndaxte kat ab dëkk boo fa nekkee nekk fa maire da war di liggéey ba ñëpp xam ne liggéey mais nag waroo tëdd di nelaw baa nga nekk fa di caaxaan ndax kat lay jiital dañoo am ci yow yaakaar ba jiital la kon war ngaa am ngor def loo man liggéey ba ñëpp xam na liggéey nga yéen a gis noonu ci image yi waa Touba ci kanam ñoo koy defar noonu loolee nag nekkul lu jaadu ndax kat lii liggéeyu maire la te gis nañ ne kat Touba ñoo ngi waajal màggal te gis nan ne ndox maa ngi bari lool mais yaa nga taa xem kenn mënut a jàll loolee nag nekkul loo xam ne lu baax la voilà kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha ci 5M TV Sénégal Sénégal MTV Sénégal